li waral daje bi nag mooy dégg lu ñu naqari dégg lu ñu naqari googu nag moom la ñuy ñaxtu bëgg ku ñu ci jàppale mboolem ñun ñi nga xam ne ñoo doon ànd ak moom daal ñun ñoo ngi ni fas nañ yéene nag nekk ci ginnaawam tey ba ëllëg fu mu jëm lan jëm lu muy def la ñuy def lu mu wax la ñuy wax ndax ñoo ngi ànd ak moom lu man ñeen fukki at te amuñ ci moom lu ñu naqari mus la am mus la am tey rek lañ ba sa am ci moom lu ñu naqari ñu bëgg nag loolu dañ ba set wecc sans borom delloo ko ci fi mu nekkoon te affaire yi defe naa nag dana ci naqaree dàq nag ndax moo ko sampoon ñi àndaloon di ko def ñu ngi nii toog kenn wallewu ko ñëpp a ngi toog kon loolu ku ne xam na ne moom moo moom moo defoon affaire ba muy campagne moo nu na woon ñun ciment lañ rek benn yoon la ñuy tooyee benn yoon boobu ñuy tooyee nag Moustapha Cissé loolu loolu lañu xam ci moom gore ak jàppalenu ak dimbalinu kon lu mu nekk noo nga ca lu mu génn génn nañu ca. tos ndaje si mooy benn objectif rek la mooy xoqatal ak néew doole bu ñu bëgg a def suñu wëllëree Moustapha Cissé Lo te li ñu gis ne moo ko waral muy digganteem ak ñaar ñi ni soow kenn ki di Farba Ngom kenn ki di Yaxam Mbaye liñ ci xam bari na suñ ko waxee mën naa tasum réew te Farba ku nekk war a wut exemple ba mu des moom du moom ku ñuy wut exemple ci moom parce que bu dee président Moustapha Cissé dama jëlale li mu def ci département de Mbacké mais li mu def ci Sénégal kenn ku ci nekk teg na ci bët benn question rek lay laaj far ba moo di que ne dossier PRODAC bi nga xamante ne moom ak Mame Mbaye Niang ñoo ko séqoon ci ci département de maatam nga génn leeral askan bi leeral département de maatam Matam dossier PRODAC boobu cinq milliards yi fan la mujjee parce que am na lu ca am président de la république Macky Sall xam na loolu kon ministre de la justice war na ca def liggéeyam ba ca topp moo yi machines yi nga xamante si ne mooy machines yi pompe yi ak machine yu val yi nga xamante si ne dañ ko mayoon population bu Matam moom Farba ngoom moo ko détourné bàyyi ko fa ba machine ya yàqu demul ci aw askanam kon kooku du exemplaire du koo xamante si ne dañuy jël ci moom exemple te lii waral coow li kenn ku ci nekk di ci wax yàgg naa am mais kenn waxul yàgg naa am ñu bari taxaw di arbitrer arbitrer googee nag tey match bi dafa dépassé terrain bi ñu ko daan footballé dem ci stade stade bi mu dem nag ki war a arbitrer ki war a atte eh, ki war a dem xoolewu vaar na dem xooli vaar te atte mais su atte it na ko teg ci dëgg. ay nit bokk coow lu ñu waxante ci seeni téléphone nit divulgué ko lijjantiwuñ loolu lu dul jékki-jékki dàq nit ki injustice mënu ko paase. te damay interpeller monsieur le président de la république monsieur Macky sàll ba ngay ànd ak Moustapha Cissé Lo gisoo Farba Ngom gisoo ba ngeen di ànd di tëb miir di seeti sëriñ si. mu jël alalam ngeen di ànd gisoo Farba Ngom gisoo Yakham mbay kon buñ dee ba bokk parti parti bi taxaw mu liggéey ci lim ci liggéey Moustapha Cissé Lo du Sénégal du Touba Moustapha Cissé Lo àdduna la loolu na leer te yow nag dañoo bëgg nga ñëw wax li nga war a wax rek la sa kër dàq bi ànduñu ci tey ànduñu ci ëllëg lu waral ñoom ña bu ñuy dàq kay nañ leen dàq ñoom ñaar ñëpp parti la coow nañ bu ñuy dàq nañ leen dàq ñoom ñaar ñëpp wala ñoom ñett ñëpp ñoom ñi nga xam te ñoo bokk mbir mi muy Moustapha Cissé Lo di Yakham Mbaye di Farba Ngom su ko defoon du ñu am lu ñu naqari mais yow nga ànd ak nit ba dara du dara da ngay xeex injustice parce que Macky Sall loolu la ñu waxoon ni damay xeex injustice mu ànd ceeg Moustapha Cissé Lo mais dañoo gis ni bi mu commencé wax ni jiwu yi nañ ko teg ci yoon ku ne li nga moom nañ la ko jox ba tey la problème yi commencé kon nag monsieur le président lii boo ci seetaanee yow sax yaa ngi dugal sa bopp parce que day mel ni kon lii yënga ko ba pare teg ci sa tànk te ñu lu lu dëgg duñ ci ànd tey duñ ci ànd ëllëg injuste bi d'accorduñ ci tey d'accorduñ ci ëllëg. maa ngi tudd Pape mbay ñu koy wax gëm sa bopp fidèle à Moustapha Cissé tey nag li ñuy yëkkati yéen ñi xam ngeen ko ñëpp xam nañ ko waa Sénégal ñëpp xam nañ ko mooy problème bi nga xam ne moo xew ci diggante président Moustapha Cissé ak ki naan Yakham Mbaye ak Farba président Moustapha Cissé Lo nekk na nit koo xam ne li nga xam ne moom la yaa xam mbay wax ak Farba dara amu si te ñu ngi ñaan président Macky Sall mu ñëw régler këram comme ni ko suñu soxna si waxee parce que yaa xam mbay yoon mayu ko appel privé yoon mayul kenn nga jël appel privé di ko divulguer appel privé lañ wax bu ko divulguer bu ñëpp dégg ko yoon war naa dal ci kawam kon ñu ngi ñaan justice wax ak yaa xam mbay ndax président Cissé Lo toogul ci télé saaga kenn day toogul si télé wax dara lu bon kii di Yakham Mbaye nag ñu ngi ñaan président Macky Sall mu génne ko parti bi ñun loolu lañ ko wax te na xam na nag président euh, Moustapha Cissé Lo xaritu démbam la du xaritu tayam naka woo frère la ñu waxtaan ba juboo jàmm am waaye far ba ngoom Yakham Mbaye wax dëgg yàlla bu leen arrêté wul dinañ yàq parti bi ndax ñoom jàmm taxu leen a jóg message bi ñuy jox euh, président mooy Euh, dama bëgg rek mu fàttaliku tuuti démb. Mhm. xam ne bi àll bi ne tàkk kenn ñi mu ngi fa siiseloo moo xuus jàll jàllale ñëpp. ndax 2012 euh, moo tax président réussir euh, mission élection yi passé bu dul woon Moustapha Cissé du dem deuxième tour yooyu ba ñu ne assemblée nationale bañ ko fa ndàkkee ba mu gestoo Cissé daa wàcc la mu la mu amoon lépp topp ko ndax ngor. yooyu yëpp nag damaa bëgg mu di ko fàttaliku te booba ba ñuy xeex di ànd ak moom ñii tey di ñëw di di ko jaxaseeg président booba ñoo ñuy sànni xeer ak di ñu xëpp suuf damaa bëgg xelam dem ci loolu. institut bi nga xam ne moom la président si loolu doon xeex barki démb ak démb moom la ñu xeex tey ñu si ne institut moo tax mu ñàkk léppam ci jamono yi bu metti te boobu Macky Sall gisut Farba Ngom gisut yaa xam mbay bu mu demee ba injustice boobu ñëw dalaat ci kaw président Moussa Cissé Lo dañ koy ñaaw ndax dañu yaakaar loolu jeex na ci Sénégal nekk te loolu jeexut président Cissé Lo ne mooy APR ñun génnuñu APR tey génnuñu APR ëllëg Macky Sall na woo grand frère am xam ne lu ne seq na ko ak moom ci teranga lu ne seq na ko moom ci ak su demee nii ba saytaane dafay nii mu defee waxtaan rek mooy solution mais dàq du solution foog naa ne nag li ñu war a mooy APR bëriwuñu bëri nga xam ne mën a nekk di dàq parce que amul njariñ du jural kenn jàmm ñun waa Touba daal ak ñi nga xam ne ñoo dëkk ci région de Diourbel ñu ngi nekk ci ginnaaw président Moussa Silo ànd ak moom ci lépp loo xam ne bëgg-bëggam la lépp loo xam ne mu ngi koy dugg ñu ngi ciy dugg ànd ak moom lépp lu mu nekkul nekkuñu sa ñun nag ay ndaw lan te moo ñu xamal lépp defal ñu lépp kon ci dara dalee ci kawam duñ ci xaar kenn dañu jël suñu engagement wax ne lii ñu defee ci part Touré ci parti bi ngir Yakham Mbaye jaru ko parce que waruñu ko jëndee Cissé Lo Cissé Lo du morom Yakham Mbaye Cissé Lo li mu représenté ci monde bi Yakham Mbaye représenté wu Farba Ngom na du ma wax ay waxam ne Amadou Birame wax na ko bëri na erreur yoo xam ne wala ay détournement yoo xam def na ko maatam yooyu na ci suuf ubbi mu ëpp njariñ ñu àttee ay Cissé Lo ak Yakham Mbaye parce foog naa ne jëm Sénégal karam ndax mooy Sénégal jëm karam ku ne am gis sa bopp ci nga xam ne noonu réew te mu tege ci dëgg ministre de la justice moo war a atte ak procureur mais at procureur bu mag mooy président de la république Macky Sall Macky Sall moo war a taxaw atte te atte bi nan wax far bu ngoom carrément li mu def parce que président Moussa Silo kenn ku ci nekk xam nga ko mais kenn ku ci nekk ci ñun xam na ne poftan la boo koy laal muy jooy laal ko moo tax mu wax li mu wax li mu wax nag ñu génnee ko moom far ba mooy jël fii ay xale di leen jox xaalis pour xam kan mooy Moustapha Sylo pour xam kan mooy wayjuru Moustapha Sylo te loolu bis na ka tey mayatuñ ko ko man ànduma ak Moustapha Sylo ànduma ak mais injustice bii ñu ko bëgg a teg moom laa d'accordul te képp kuy doomu Bawal waru ci d'accord parce que président Moustapha Sylo ñu ko ñun ñi dëkk Bawal jiyuñu ko ñun ñi mu bokkal dëkk Touba ak lu man di xew doomi Bawal la ak lu man di xew doomi Touba la kon ñun ñoo war a taxaw sol suñu mbubb avocat euh, défendre président Moustapha Sylo parce lii di indi coow lii lépp ñaar ñi nga xam si ne ñoo ko waral kenn kenn du ci moroomu Moustapha Sylo fu Moustapha teg tànkam ba ba teggi ko képp ñoom bu ñu fa tegee seen tànk suux kon waruñoo taxaw di seetaan président Moustapha Sylo aussi ndombal tànk yi mu yor li mu jëriñ askan wi li mu jëriñ Sénégal boobu ba léegi vraiment euh, euh, trop c'est trop mu ngi bëgg ëpp.